xam ne noonu nañ ko jàngatee mooy niñ ko tëralee rek gis nañ ne daara pake bi ñi nga xam ne ñoo ci bokk bokk ci fédération bi du daara yëpp lañ jàpp dafa am daara ñu tànn daara yuñ tànn nag wax nañ quatre cent cinquante daara wala quatre cent trente et un daara waaye ci Jurbel lim ci am moom fa tabaarakallaahu ci cent daara yi jiitu woon set la ci amoon kon foo naa lañ ko dolli bariwul mooy deux cent euh, mooy deux daara benn daara benn daara paquet ñun paquet bi la ñuy wax moo tax ñuy wax fédération bi tabaarakallaahu man maa ko jiite woon waaye dafa am sama benn doom boo xam ne moom laa ko teg ci loxo parce que moo gën a nekk ndaw man mag laa am na yoo xam ne mënatuma ko mooy tax ma yëkkati ko jox ko ñu di ko wax Cheikh Gueye moom moo yore baatu fédération bi léegi waaye man maay seen kilifa ñoom ñëpp baarakallaahu rafetlu fédération bi ni nga xam ne noonu lay doxee ak ni mu doon doxalee daara yi e, dëgg daaw ba ren Covid bi tax na seen euh, activité yëpp daanaka dafa beleese ba dara amul kon su paquet bi jegee paquet bi daaw ba ren doxul ren la soo am sant yàlla yal na yàlla dolli jàmm mooy paquet commune bi jóg fi ba ñu ñu mën a jàng kon bu ñu ko yëkkatiwaatee ministre bi indi ci yeneen forma euh, forma maanaam yeneen euh, mbir yoo xam ne da koy gën a defar ñun dañ koy rafetlu di rafetlu ñi nga xam ne ñoom lañ bokk nekk muy inspecteurs yi di Boja di euh, Cheikh Lo ñu ngi rafetlu seen taxawaay bu baax a baax a baax paquet bi daal. niñ fas yéenee doxalee ko yàlla nañ si yàlla jàppale waaye yaakaar nañ ne bu doxee incha allahu résultat ya nga xam ne moom lañ si yéen woon ci biir daara yi dana ca mën a am